asalaamaaleykum kon mbokk yi ñoo ngi leen di ziar yéen ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew eh, ni ñu koy àndee ak yéen su nekk te jii nag ñoo ngi fii ci Dakar Parcelles Assainies unité 6. ñoo ñëw fekk fi Serigne Abdou Guèye mu yëngutu ci wàllum ñaan wàllum faj moom nag lañ seet si tey bëgg waxtaan ak moom ci liggéey am solo bi nga xam ne nii eh, mu ngi koy def te askan wi itteewoo ko. kon sëñ Abdou Guèye ginnaaw bi leen leen nuyoo ziar la ndax man nga ñoo wax ak lan nga mën a baaxee mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew ci liggéey bi nga xam ne ni yéen a koy amal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bokk julit yi maa ngi leen di nuyu rawatina bokk taalibe yi di dem ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ sidul maxtaar mbakke di ko ñaanal suñu borom may ko fan mu gudd lool wànd ak wér may ko ba mu yëggalee mbooleem naal yi mu naal ba naal yeneen te ànd ko ak moom waaw soxna bi ñu ngi lay sant bu baax ci nii ngeen def ñun nag li ci suñu liggéey mooy wàllu asraar ak wàllu ñaan ak wàllu faj buñ ne asraar nag mooy alquran alquran kenn mënta wax asraar te waxoo alquran téere alquran bi boo ko xoolee mi ngi doon 6666 aya 114 saar gindi yow ma suñ borom wax ne maa farat naa fi kitaab bi min shayhin téere bi ma ci dara kon li may njëkkee ci wàllu li nga xamante bi yàlla dogal na ñu man koo baaxee nit ñi bokk na ci nit ki nga xam ne dafa bëgg alal ki nga xam ne dafa bëgg alal maanaam wërsëg bu bari bu yaatu mhm. kooku bu ñëwee ci ñun bu àndeek dogalu yàlla danañ ko ñaanal ci alquran ak ay secret yu nëbbut yu foor yoo xamante ne bii dana ci man a jaare ba am alal na ko bëggee incha allahu rabbi alal nag daa bari ay façon am na ñoo xam ne dañuy sonn door a am am ñoo xam ne midi la ñuy yeewu te duñ jeexal dara kon liggéey bu metti taxut ta am ay secret mooy tax am ndax doon nga fi dégg ñuy wax njuga kebe allah njuga kebe dégg allah jili mbay ñooñu lañ yoroon ci ay milliard bu doon jaay ak jënd kese kese rek yaakaar naa duñ ko mën a amee noonu waaye ay secret dafa ne ci alxuraan yoo xam ne ñun yiñ ciy defar am na yoo xam ne ci ay mbaamu sëf lañ koy liggéey mbaam sëf yooyu nag du question ne da nga leen rendi wala déet du njabar dama bëgg mu leer du njabar alxuraan la ndax surtout kaf fi ngay liggéey ba ba ca Eh, wa isa jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kaana wa'du rabbi haqqan ak la muy àndal nga boole ko suratu yusufa baatu sijn boo yegg rek da koy dindi am loo fa dugal dugal fa turu kooka ak limu xaalis ba mu bëgg bu ci 5 millions la tàmbalee ba ci milliard lu ci waay bëgg rek buñ ko ci liggéeyalee ci mbaam yooyu ba dàq ko mbaam yi nag kenn du leen rey da nga leen di dàq mu jëm penku bi nga dàq mu jëm sow bii saalum bii gànnaar noonu lañ leen ko ci defee yow limu alal bi nga def ci biir foo mën a jaar bala ngaa sàngoo suuf di ko am muy benn ñaareel bi tamit am na jaare yoo xam ne ñu ngi koy liggéey ci faja sha shaqasha loolu tamit ab talsam la boo xam ne juróom-ñaari turu yàlla la lëm juróom-ñaari turu yàlla yooyu ci xilaaf ak Seydina Omar lañ ko la feeñ bi muy feeñ keroo xaysar moo ko gis ci ab téere jox ko ay jaraafam ne ko demal wanal ma ko Seydina Omar ba xam ndax baat bi dama ko gis taxaw ma ko Bamko ko xolé ne ko ah man itam de xawmako sayna Omar ko gis xamu ko mu wo Seydina Ali bam ko xolé ne ko bat bi de juróom-ñaari turu yalla la muy fardu jabaru sakkooru sawabu sahiru khabiru shakiyu juróom-ñaari turu yoyu ci lañu génne su ah, xaatimu Suleyman boo koy fan ngay wor pour nit ki man am alal man am ubbe man am wursak ay biram di dox koku ci lañuy ñuy jaar bobu jox la ko nga tak ko sa loxande jor foo mën a jaar ci àddina da bokk ci borom alal muy benn muy ñaar ñetteel bi nga xam ne dafay joxe alal tamit muy benn sangaay boo xam ne dañ koy liggéey buñ ko liggéeyee ba noppi day ànd ak béye ba nga bëgg a barile bu dee ci Sénégal béye dix mille moo fi ëpp doole béye cinq mille topp ci deux mille franc topp ci mille franc topp ci cinq cent franc topp ci bu dee ci bitim réew itam alal xaalis ba nga bëgg kayit ba nga bëgg bari le moom ngay jël boole ko bi sango ko nañ la ko waxe nga defe ko noonu la mu la ci sarax nga genné ko soko ko da nga bari bëye yoyé ya, ba bëye yoyé ya, di nga ko bari la ba sant yalla yoy bokku na ci fànn yi ya, nga xamanteni bi day jox alal waye ak lool lepp nak bala am il faut ñu sét nit ki ba xam lan mooy gàllankooram ndax ab ndab bo ci bëggé def dara da nga koy raxas bu mu set nga door ci def dara la nga ci def neexa xol budul lool la nga ci def di ko mëna yooyu moo fi nekk ci fànni alal ak yeneen yoo xamante ne bii tam boo ci ñëwee laaj ko ñu leeral la ko incha allah rabbi waaw. jërëjëf sëñ Abdou mu mel ni euh, euh, njàlbeen gi ni ko tàmbalee am na solo te leer na ñu bëgg na xam itam liggéey bu am solo bi ngeen def kañ ngeen ko tàmbali ak naka la dikkee ci yéen bi ngeen ko jàng wala lu def ci yen la. waaw loolu ci la bokk ndax ñun man maa ngi cosaanoo Bawal. dëkk bu ñuy wax njaageen fa samay maam dëkk fa la samay baay dëkk ñoom ak alxur ak alxuraan kese lañ xam ak diine islam ci lañ juddoo samay waajur ci lañ juddu samay maam ñoom ñëpp ci xam-xam rek la ñu xam amuñu leneen lañu xam dëkk boobee nag boo fa soqi koo te meloo nii rek da nga da nga da olof yi wax bu juddoo ci mu tàgg bu naawul dina jaaxal ay bokkam kon lii ñuy def ginnaaw bañ ko doon ne ci suñuy maam tamit doon na ko ci suñuy waajur wëlbatiku nañ nag dem jàngi ko ci yeneen réew yu wute ba am ci xam bu wér bu wér wér nga xam ne ñun li ñuy def nëbbatuwuñ ci làqatuwuñ ci wuñ ci itam ndax ñun duñ ay njabarkat ay sëriñ lañ ñuy ñaan ci alxuraan sama xam-xam génnul alxuraan génnul sunna Seydina Muhammad génnul diine lépp lu di ak njabar rek maa ngi ñaan suñu borom mucc ca loola kon ñun loolu mooy suñu mbir dañ doon nañ ko suñuy maam doon na ko suñuy baay wala bëtiku dem jàngi ko nag ndax li nga jàng ak li nga doon benn waaw ah, loolu sant nañ ci bu baax. mu mel ni itam ci say biir kàddu. wax nga ne di ngeen di ñaan lu jëm ci wàllum ubbeeku wàllum wërsëg. waaye itam gis nañ ne jamono ji itam ñu bëri ci doomu aadama yi. dañu ittewoo lu mel ni ay ñaanu bëgg a tukki. bu dee góor ñi ñuy ittewoo ñaanu am ay soxna bu dee soxna yi ñu ittewoo itam bëgg a am ay borom kër ndax loolu itam di ngeen ci def ay ñaan wala déet. waaw lépp loo xamante ne bii ci wàllu ñaan la jëm rek si ñoom du ci yëngu. ndax ñun ba ñuy ba nit ñi demee di jàngi eh, ñii di jàng football ñii di jàng téyeer ñii di jàng nangam man damaa demoon jàngi xam-xam pour dimbali doomu aadama yi jigéen ji nga xam ne dafa bëgg borom kër te mënu koo am te yàlla dogal rab téye ko wala saytaane wala lu mën a doon buñ ko xoolee ba xam fañ cee jaar rek incha allah rabbi day daal di dem day daal di am borom kër ñaareel bi muy góor ñi nga xam ne fu ñu dem nobi ñu dàq leen mhm. ñooñu tamit bu ñëwee ci ñun ci kàttan na suñu borom moo xam nga ne biir réew mi moo xam nga ne bitim réew mhm. boo jokkoo ci numéro yooyu bu soobee yàlla danañ la jaarale ci yoon woo xam ne la nga bëgg da ko am ci lu gaaw ndax alxuraan moom bàyyiwul dara mhm. yow yaay xóotal sa gëstu am ci la nga bëgg wala nga néewal sa gëstu rek waaye yàlla yàlla moo ko wax farat naa fi daal min say fàttewuma dara ci téere bi téere boo xam ne nag ki ko sàkk fàttewu ci dara kon yow nit ki yaay yokk sa positif rek am ci la nga bëgg wala nga néewal sa positif am ci la nga bëgg lépp lu jëm ci wàllu ñaan boo ci jokkoo sañu liggéey man aw ma rëyu mënuma nangam loo ma sant mënuma ko rek dama la wax loolu mënuma ko waaye lépp loo xam ne nee naa la mën naa ko rek buñ ci jëflantee nga gis sa ndam incha allahu rabbi hmm. ba tey beneen laaj bi ci toftalu ci sa biir kàddu dégg nañ ne nga ne euh, am na xeeti doomu aadama yoo xamante ni wala ëpp ci doomu aadama yi bala ngaa def fi ñoom dara il faut nga xool leen comme ni nga ko waxee ndax bala nga cee def dara il faut nga raxas ko mm-hmm. mel ni kon loolu bu ñu ko déggee mm-hmm. wàllum seet lay doon mm-hmm. seet googu nag ndax da ngeen koy def à distance maanaam par téléphone wala obligation la ki nga xam ne da koy seetal mu ñëw teew fii déedéet teew gi moom dalay neex rek waaye foo mën nekk ci àdduna bi boo bëggee ñu seetal la say mbir ñu seetal la ko dañ la ca wax loo xamante ne bii lu leer nañ lay doon ndax loolu moom ñi ci xam bari man duma wax duma app paré wala yaakaar na lima lay wax day nek sa jëm nga xamal ko sa bop mhm. par distance man na ne foo ni ci aduna bi rek boo wootee ci numéro yi mhm. bo ñu jotee bu àndeeg dogal yalla mo ni la sétal par distance té li lay wax do ci wéddi dara mhm. da li nga fanano bi ki yendo ko ku xey wax la ko war nga xam amna ci yow lu mu xam ci yow lolu mom lu wër la ku ñew fi baxna ku ñew dit fo man nek rek boo buggee ñu sétal la incha allah rabbi loolu moom luñ jàng la luñu xam la luñu maîtriser la tamit mel ni wax nga ko léegi itam walum rap wala wàllum jinne moom tam lu yaatu la ci jamono ji léegi moom itam ñu bëri bëri dañ koy jàmbat ndax lool itam danga koy faj ci alxuraan da nga koy euh, dañuy def ay ñaan ci alxuraan bi wala loolu itam lan fan nga ci doon. waaw kooku dañ koy faj bu baax loolu moom du yàgg sax bu dee rab hmm. ki ñu dul faj daal mooy dof bi nga xam ne daa summeeku hmm. kooku mom man duma ko fajj ndax man na demé rek mo yalla maye dund ba ca karam ba samay at mat ko dina ko mëna fajj inshallah ndax liko likoy fajj mi ngi fi waye fi ma toll samay kilifa yi ma jox ndigalul ma baña fajj ñoy waye ki nga xam da yor ay rab nak di gént wala mu yaqulé ci alalam wala muy xulo ki nit ñek jek jek di mer kenn du la def dara yoy mom bo ñëwee ci diir bu gàtt lañ la koy fajj inshallah allah moom ki ñu liggéey ak yoy yépp dañ koy saafara ci lu gaaw loolu mom ñi ñu ci xam-xam nañ xana ñi ñu xamul kay ñoo ñu xamagul waye ñi ñu xam ci lool mom nañ def yi moom lu wér fi nekk ndax cosaan laa yor man te moom lay jëfandikoo ba tey sëñ euh, abdou liggéey bi ngeen di def nekk na liggéey boo xamante ni liggéey bu am solo bu mënta ñàkk ci àdduna mm-hmm. waaye gis nañ ne lu ëpp ci nit ñi riir na wursi ko mm-hmm. ñenn ñi xamuñu ko ñenn ñi jànguñu ko ñenn ñi utub xaalis moo leen ci yëpp mm-hmm. foofu itam lan ngay dalale as euh, xelu askan wi ak itam lan ngay ñaaxe ñeneen ñi nga xam ne ni xëy na dañ ci nekk ngir lool askan wi waaw man damay wax ne maanaam li sëriñ li sëriñ sëriñ ba waxoon rek laay wax. Mhm. woote yi wuute na. Mhm. ay wuute nag du fi jóg. Mhm. waaye yow mi wuy ji yaay seetlu kii woote ak la muy woote. ndax nit ki moom euh, métier boo dem ci àddina rek am na rax. boo demee ci journaliste bi am na ñoo xam ne mënuñu ko. boo demee ci auto euh, chauffeur yi am na ñoo xam ne mënuñoo dawal. boo demee ci tailleur yi am na ñoo xam ne mënuñoo ñëw mhm. métier boo dem rek da nga fay fekk koo xamante ne bii moom man mhm. na ko am ku ko tële am ku koy roy mhm. te kuy roy ak ki koy jiim nag duñu masa doon benn loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla bi ñu ci yàlla génnee yàlla dogal na ca suñuy maam suñuy baay li lépp lu ñuy def dañ koy teg ci xam-xam lu wér lu ñu ci rek danga koy gisee na nga ko waxee insha allahu rabbi ndax ñun amuñu dul alxuraan te alxuraan boo ko sellalee teg ko fi nga ko war a teg boo ci ñaan rek suñu borom di ko sotal moom ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. Mm. comme noonu nga ko waxee rek yaakaar naa ne dalal nga xelu askan wi bu baax a baax a baax waaye ñeneen ñi nga xam ne comme ni nga ko waxee léegi dañuy jéem wala ñuy jéem a dugg ci liggéey bi di ko jëm a xajamal ak a yàq mm-hmm. ñoom itam du jomb du jomb nga soññu leen wala nga am ay kàddu yu yoo leen wax ngir ñu waslu ak seen diggante ak jaami yàlla yi nga xam ne nii ñu ngi leen di lor. li ma leen di wax rek mooy ñu dem jàngi. Mm-hmm. ndax xam-xam metti mu meuna don rek boko boko jangul maîtriser woko do doo ca mën a ca a a te nit ki nak liggey xalissam mu metti muy taw muy naaj muy metti ba ñew jox la ko nga dem tëdd lek ko lolu moom ñawna na trop trop trop kep ku koy def nga xamne faato la te dem sawra mm-hmm. nañ bayyi wor mm-hmm. bayyi nax doomu adama te liggey alquran yaatuna na yow ñaata nit mo am tawat bop bu metti dong bu fekke mom nga jangal lu koy fajj ñaata nit la seen bop di metti bo ci yeme rek da nga da nga di nga yàlla dina la ci defal lim la wara defal lu jóg nga ne man naa ko loolu as gor ko def day am lo man am lo télé am lu la reer nga diko wara man non la mel man nangu man mun ma lepp dafa am yuma man am yuma man yima man nak kep nag képp ci ñëw ñu jëf leen ci maag yow da nga ci gis saafara inshallah rabbi yima man di dem boo mako ko dama na mun ma ko kon ma ngi digal ñi nga xamne dañ cey dugg te mënuñu ko ñu delu jàngi ko ba man ko door del ci boba dina barkel te dina law inshallah rabbi xam naa laaj bi ñuy mujjee euh, nga joxe adresse yooyu mooy liggéey bi ba tey gis na ne da ngay client bu ne ngay am client bi nga xam ne ni dafa ñëw ngir lu ko aar wala lu ko jariñ waaye am na beneen client boo xam ne ni dafa ñëw ngir lor moroomum jullitam wala moroomum jaamam loolu itam ndax jaadu na ab ki nga xam ne day liggéey ci liggéey bi di ko nangu wala ban gis-gis ngeen am ci côté boobu. man de lépp képp koo xam ne danga jóg ngir la man na sama bopp laa mën a défendre mm-hmm. képp ku jóg ngir lu bon mm-hmm. bu ñëw sama kër ndax man lu bon taxumaa jóg mm-hmm. ab jullit la ab murit laa taalibe Cheikhul Xadim laa te ab jullit boo ko doonee rek doy na sëkk nga rawatina nga dolli ci doon taalibe Sëñ Tuubaa wala bëddiku di def lu bon ba noppi di yaakaar na ko ca baydu wa rajaahu jannatin bila taxaati bu sinnatil maahi yaati kon nak loolu ñun duñ waru mukk képp ko xamne lu bon mo la tax a jóg ngi lay ñaan ngir jëm yalla bu la ci sama kër ndax man lu bon duma ci dox te duma ko def te sama yoon nekku ci waa kon euh, sëñ Abdou Gueye ñu fàttali mbokki juliti mbokk taalibe yi ke ñu ngi fi ci Parcelles Assainies unité 6 tay nak ñu seet si woon sëriñ Abdou Gueye nek ko xamne ni day yëngu ci walum ñaan euh, ñu war def nak waxtaan yu ñaari pàcc pàcc bu jëk bi deg ngeen andina na euh, lu yaato yaatu ci liggéey bi nga xamne ni mom la ci def ak ragal yalla gem ci bolé kon dañ koy delloo kaddu gi mu gën a leeral adresse yi fi mu nekk ko soxla na ngay def ba ñëw fi euh, bu ko defee ñu dooral nag dem ci beneen partie bi nga xam ne nii day jëm ci wàllum beneen beneen beneen fànn gi nga xam ne nii mane ko kon sëñ Abdou nga gën a leeral rek adresse yi ak fi lay fekk ak itam noo tënkee euh, pàcc ko njëkk gi adresse bi moom bu ñu nekkee Touba mhm. ñoo ngay nekk jannatul foofu la ñuy nekk jànnatul firdawsi la ñuy nekk Touba mm-hmm. bu ñu wooyee rek boo bu fekkee ñu nekk jànnatul firdawsi ñu ne la ñoo ngi jànnatul firdawsi mm-hmm. bu fekkee ne ñoo ngi dakaar tamit parcelle la ñu ëpp lu ñuy nekk mm-hmm. unité 6 ci dépôt gaz bi foofu la ñu ëpp lu ñuy nekk waaye comme numéro yi rek moo ci am solo boo ko yoree foo woote rek dañ la mën a wax ne ñoo ngi béréb sàngam jamono yi adresse bi tamit numéro bi ci njëkk 77 la 943 06 88 bi ci toppaat don 76 642 46 04 boobu moy whatsapp ah, bi waaw boobu daal ku ci jaar yàlla mën naa ñu jokkoo insha rabbi ndax kon xam naa kàddu yu sant sant Touba ndax ñun luñ mel rek bi la bi Touba ñoo ngi ñaan nañu ko fayal yàlla na fay te nu ci biir jëmmam làq ñu ba dara bañ ñoo dara mbolem fa ab murit nek rek mbolem fa ab julit nek rek ñoo ngi lay digal jaamu yalla ak ragal ko ak jëfe ndigal Serigne Touba ta li ngay am ci sa wërsëg nga di ci jox andi Serigne Touba ak noko mané ñu ngi lay ñaan ñu ngi ñaan ñepp am jamm barki Cheikhuna Cheikh amadou Khadim di Serigne Touba di Serigne Touba di Serigne Touba kon mbokk yi ni ñu ko andé won ak yeen batay rek ñu ngi desandi fi ci Parcelles Assainies unité 6 and ak Serigne Abdou Guèye de ngeen légui lim léral ci parti bu jëk bi nga xamné ne ni mooy vidéo bi ngeen doon sétane mu yëngu mu mu doon leeral lu jëm ci wàllum ñaan yi nga xam ne ni mu ngi koy def ak am solo yim ci leeral waaye beneen partie bi nak sëñ bi ginnaaw bu ñu yeesalaatee ni yooyu ak ziar yi dafa mel ni da ngeen di yëngu ci wàllum paj te bu ñu waxee paj am na ay jàngoro yu bëri yoo xamante ni dara na doomu aadama yi léegi foofu lañ lay bàyyee nga ñëw paj bi naka nga ci duggee ak yan jàngoro ngay faj ak naka nga koy fajee wa inni uhiisuha bika wa surriyataha min sayyidina rajim rabbi a'udzu bika min hamasati sayyidin wa a'udzu bika rabbi yahdurun rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli sadil lisani nawir janani shafi amani wa sibrahi. mbokki julli di mangi len di nuyu rawatina bokki taalibe di jital ci nuyu bi shar bi serigne sidil makhtar. Diko ñaanal sun borom may ko fan gudd ba ya mu yeggale naal yi dañu anu ko ak mom. Wa ku bax monam ñaan yi febar yi ñi faj bari na bari way bo xamne comme li ma daan wax rek yenn saa nga dégg benn waaye ne xanaa yéen feebar yëpp ngeen di faj mu ne ko déedéet faj ñu feebar yëpp de waaye dañoo xóotal suñu xam-xam ndax ñaata garab ñoo am ci àddina lu yeme ni ngeer caxat ngeen salaan ak xe ak xeeti ya ca des yooyu yëpp bu fekkee ne yow da ngaa gàttal sa xam-xam ba mën cee faj ñaari feebar kese kon sa gëstu guddul moo tax ñu mën a faj feebar yu bari ci kàttan suñu borom nag lañ koy ya faje dañuy faj émorite ya hémorroïde tamit baxna bo ne nee nga wax nit ki nim koy def bam xamne mom mi amna na hémorroïde li ci ñëk moy dana dana jàpp kàttanu doom adam muy néew doole ci walu ay soxna ñaarel bi tamit dana sarse biram ba mu fees ak ngelaw muy muy balone fu mu toll mën di téye ñap dana dag kawar tamit bu dee jigen dana dag kawar bu dee goor dana xonxal ay bët tamit dana waral nit ki tamit làmmiñam am ay picc yu sew muy di weex dana xar diggante ay tànk tamit diggante baaraam yi dana fa xar dana xar tamit testane bi li ñuy wax testane bi dëggul yi dana koy xar loolu ndoxu siti da koy def boo nee ndoxu siti nag ne hémorroïde ndax ndoxu siti mooy ndeyu jàngoro yi ku mu dal nag néew na lool lool lool lool looy doon jàmbaar ci say soxna néew na itam yoo xam ne amoo yeneen feebar yu laqatu ci biir ndax comme dara rek xamal ne mooy feebar bi nga xam ne moo lay ubbil pour yenn feebar yi mën a dugg kooku nag képp ku mu dal boo àndeek dogal yàlla boo ñëwee fii ci ñun dañ la saafara ci lu gaaw loolu moom ñi ci xam-xam nañu ci bu baax a baax a baax baax euh, ñun suñuy garab mooy waxal boppam loolu moom leer na nañu moom képp koo xam ne yaa ngi ci réew wala ci biti jokkoo ci ak ñun ñu yónnee la garab yi ba jot ci soo ko jëlee yaay woteel sa bopp ne sant naa bu baax loolu moom ñu ngi sant yàlla bu baax a baax mm-hmm. mel na ci biir tawat yi jot ngeen a lim ñaari tawat mm-hmm. muy hémorroïde mm-hmm. ak ndoxum siti mm-hmm. hémorroïde wax ngeen euh, naka lay mandarga ak lor yi nga xam ne ni mën na ko lor doomu aadama waaye itam ñëw nga ci siti siti nag mu mel ni euh, nekk na feebar boo xam ne nii yaatu na lool ci àdduna bi rawatina senegal gi ñu nekk ba ñu bëri bëri xëy na bëri nañu koy faj waaye am na ñu ko tëlee faj lool. Mm-hmm. moom itam ndax man nga ñu wax ay mandargaam ak itam naka nga koy faje comme ni nga waxee ci li nga mën a leeral ci euh, télévision bi. waaw xam nga siti mm-hmm. moom boo ko xasee wax rek. mënoo ñàkk bañ wax hémorroïde. Mm-hmm. ndax ki nga xam ne moo am siti bu yàggee mooy dem ba yóbbu ko ci hémorroïde hémorroïde moom. dafa am interne am externe. am bu nekk ci biir ak bu nekk ci bitti. bi nekk ci biir nag ñi ngi koy xamee. moy sa bir day sarse ak ngelaw ba fees bo timé ak ñom do ci mëna lek lu bari mm-hmm. te di nga tok lu mat ñetti fan dooro dem aajo mm-hmm. te day am picc bu nekk ci suuf mm-hmm. am na koy def bu nekk ci biti na moy am picc bu nekk ci suuf saf lool di metti xamné sa bo démé boy dem won ak sax dang koy wajj loolu moy émorite ndox ci nag li mu mën a bari na ci goor ak ci jigen amna goor ño xamné mënu ñu am doom asafala duma ne mënu ñu am sax war nañu am doom waaye tële nañu koo am ngir liquide bi war a nekk ci seen wallax njaan yooyu pour ñu am doom hémorroïde ndoxu siti bi yàq na ko wala mu néewal ko doole loolu mooy tax ñaare seen am doom di jafe seen seen wal seen ndox day woyof ba du mën a am duñ mën a am doom bu dee jigéen tamit bu nekkee ci butitu njurukaayam dana ko waral du mën a am njaboot moom tamit tey tamit dina ko yàqal lu bare bare ci wàllu santeem bu jàppee góor tamit kasaalika naka noonu ni muy def góor bi rek noonu lay def jigéen gi moo tax moom képp ku ko sentir sa yaram rek dawal gaaw faj ko ndax soo ko ko jullee dana la yokk leneen ci yow loo xamante ne bi doo ko won foog kum dal rek demal saafara ko incha allah kum dal tamit boo ñëwee fii ñu saafara loolu moom liñ ci faj ëpp na junniy nit duñ ko mënuñu ko lim waaw gannaaw ñaari tawat yooyu muy hémorroïde interne externe comme ni nga ko waxee ak city ndax am na yeneen tawat yoo xamante ni yéen a ngi waaw bari na bari na tawat yi ñu mën a faj moom nit ki rek mooy ah, am tawat bu mu yëg ci yaramam hmm wote ne ah man de tawat sangam moo ma dal ndax da ngeen ci yëngu man awma reyuk mun ma nangam bo ne ma ndax da nga yëngu ci tawat sangam rek suma ko mënee faj rek dama naan la man naa te buñ ci jëflante di nga xamne nañ ko faj dañuy faj jabet am na wax ne jabet du wer lolu man d'accord ma ci ndax li kulli daahun duha ci be ko wax jàngoro yëpp am na mënoo gëm ne nag jangor am na ba nopi ne jàpp ne garab sang ne tawat sangam du lolu mën ta nek yooyu bokk na ci ñi faj dañuy faj perte blanche jigéen gi nga xam ne day kanamam day am yu ciy génn wala yu demee noonu noonu nañ ko mën a misaal ndax wax am na yoo xam ne boo ko leeralee du ci ñiy dégg mm-hmm. waaye kim moom bu ñëwee dañ koy faj loolu bokk na ci tawat yi nga xam ne dañ koy faj ak tawat yi nga xam ne buñ nga koo laaj soo ko laajee ñu xool ba xam buñ ko mënee dina nañ ko buñ ko mënut dina la moom amuñu wax dëgg yàlla waaw comme ko waxee rek tawat yi ko toppee daanaka bëri na lool ci jamono ji ñu nekk mm-hmm. waaye ñu bëgg na xam faj mi comme ni nga ko waxee junj nga ko. Mm-hmm. nga ay ngeer ak yeneen i ay yeneen i garab. Mm-hmm. ndax faj mi li ëpp ci faj mi. Mm-hmm. ci garab yi nga koy defee maanaam garab yi nga xam ne dañoo nekk ci àll bi. wala loolu ngay boole ak alxuraan bi wala lan nga mën a leeral ci ci faj mi diggante maanaam traitement yeeg yooyu noonu. xam nga garab kese. boo ko jëlee te boole woo alxuraan. doo am doo am doo am li nga bëgg dëgg-dëgg. ndax tey boo jëlee garab gu ñuy wax wasu soor. kooku boo jëlee wayoon sarukallah ñooy tolloo peese ñooy tolloo kon foofu boo bëggee jëriñ nga jël garab googu boole ko ak lam tollool ci alxuraan bind ko ca lim booba boole ko jox ko nit ki mu mën a saafaraw man sunguf yi may joxe sax dama koy mooñaaleeg alxuraan ba mu wow euh, fu ñu koy weer du am naaj kenn du gis jant boo ko xasee dagg rek dootu gis jant alxuraan nga koy jëmb ba mu wow nga dugal ko foo xam ne du gis jant ba wow foofee nga door koo mën a joxe pour mu saafaraw mu tax yenn saa yi jox nit garab mu dem ci marché yi di ko wër waaye day jënd jënd jënd du ko amal njariñ ndax lañ ko booleel xamu ko waaw loolu tamit bokk na ci yi nga xam ne garab yi ëpp ci ñuy faja nag mooy garab yi xew ci réew mi rek ndax yonent bi sallam neewoon na réew mu nekk la leen di faj suñu borom saxal na ko ci seen biir réew mhm. waaw nit xeet wu nekk rek boo demee Chine garab yoo fa sax mooy faj waa réew mi boo demee Espagne Italie bu ñu ko xamoon garab yi fa sax rek la yàlla ndax yàlla bu la wàccee rek da lay boolee li lay saafara di la wàccee noonu def pour ngay wuti say saafara nit ñi nag ñoo xeeb seen bopp xeeb seen cosaan ba boo nee wàllu faj ci wolof rek ñu ñu commencé di ko sikkal te saa buñ jaaxlee rek ñëw saa buñ jaaxlee ñëw coow li muy bari bari bari ku ci dem hôpital wër wër wër wër ci ñun ngay mujj rek ñu faj la kon nañ fonk li ñu yor ñun tamit te xam ko bu baax a baax insha allah mel ni foofu nga waxee am na solo day dikkaat rek ci liñ laajan ca waxtaan wale muy fajum cosaan mi sax moo ci raw fajum cosaan léegi bëri na lool ba fi mu ne nii ñu bëri bëri sax ñu ngi am ay kàddu yoo xam ne nii wala ñu ngi xool bët benn bët bi fajkatu cosaan yi ngir ñenn ñi nga xam ne tàbbi nañ ci te amuñu ci ab xam-xam tel nañ ci bay lor yenn doomu aadama loolu itam en tant que yooyu yi nga xam ne nii comme ni nga ko waxee léegi yéen a ngi yëngu ci liggéey bi di ko sellal di ko booreeg alxuraanul karim mm-hmm. am nga loo ci mën a dalale xelu askan wi ak itam appel booy lancé maanaam soññe yooyu soññe ñeneen ñi nga xam ne nii dañuy xaw a tilimal seen liggéey waaw man moom may faral di wax man mm-hmm. nee naa ba ñu ma ku ma sànni ku mm-hmm. waaye doo ma jam bu la neexee nag nga jël ñëpp dugal ma ci seen biir waaye bu bu pënd ba wuree rek nga xam ne bokk ma ci bokk ma ci nag du ma ca du ma ca nag bokku ma caa a wóor man laa ñëw ko dama am tawat sangam bëgg ko saafaraat ma faj la nga dem man loolu laa xam sultan ci laa nekk ama jëmmi ñi nga xam ne nag jubuñu ci seen bopp lañ nekk lu leen neex def man damay fexe ba duma ca bokk rek képp ku ñëw fi man daal loo sàkku fi man ma ne la mën naa ko na nga waat ci yàlla ne loolee naa la ko defal insha allahu rabbi man moom ci dëgg rek laa toog def ci laa fas yéene faat ndax ci loolu lañ ma yar moom laa xam alquran laa jàng talibi sëriñ tuba la xasida laay jàng kafe laay naan kon jomb na maa fenn ci sama diggante ak ak mbokki talibé yi ak na mbokki julit ndax ni ñi def ba am seen xaaliss jox mako ko xaw ma nit ki fexé ba am xaalissam jox la ko nag nga nax ko wala nga war ko naxoo ko waroo ko sa mbokk rek ngay nax waaw kon ñun doon li jub rek ci lañ fas yeneen nekk lépp daal luñ fa ak nit te it am na benn tawat bu ma fàttee wax góor gi nga xam ne dafa tële te judduwaale wu ko wala mu néew kattan impuissance sexuelle ak évaculation précoce yooyu yépp ki nga xam ne da ko wul bu ñëwee diir bu gàtt la koy fekk loolu moom ak ki nga xam ne dañ koo liggéey ba mu ko ne koo liggéey kooku bu ñëwee liggéey moom ñetti fan laa koy dindi liggéey ba lu mu rëy rëy rek ñetti fan laa koy toj incha allahu rabbi loolu ñi ma ci xam-xam nañ ma ci góor gu tële nag moom bu fekkee judduwaale ko wala mu néew doole ci ay soxnaam diir bu gàtt lañ koy saafara lool tamit moom ñu ci xam-xam nañu ci baax baax comme ni nga ko waxee léegi rek euh, ñax googu dana la kaalew ñax gu tooy mm-hmm. waaye ku nekk itam xam nga sa bopp mm-hmm. ni nga ko waxee léegi waaye ngir gën a walla tuuma gën a sàmm seen sécurité seen seen gën a sangewu ndax kon jotut yéen ñi nga xam ne ni yéen ay yëngu ci pajum cosaan ngeen booloo ci genn kuréel wala ngeen di daje di waxtaan bay gën kii wala ban solution ngir war a mën a def ba gën a dal xelu nit ñi ci ñi nga xam ne nii dañuy liggéey ak ñi yàq ak liggéey bi man daal solution bi ma am man mhm. te xam ko ta nekk ci mhm. mooy résultat rek mhm. man résultat laa gëm loo mën a sànni nit ñi ay xeer wax a wax a wax a wax a wax wax boo ñëwee ci man saa ji faju man loolu laa xam mm-hmm. ñi nga xamante ne bii nag dañuy waxal naa la sànq ne la nit ci boo dem rek am nañu jarax te bokkuñu ci mm-hmm. loolu moom ba tukki rek ñii dañuy jub ñii di jubati mm-hmm. yonent yi fi jaar yëpp ñi jub taxu leen woon di sonn ñi di moo leen taxoon a sonn kon loolu la mbir yi demee adduna moom ba fekk muy daj yàlla moo bëggul addina baax ñi dañuy war ñi di nax nit ñi ñi di nafiq waye ci biir ñoo ñi di war aka nax nit ñi nak amna ci ci biir ñu set wecc ño xamne mom seen diine ak seen ngor ak seen jom kenn mënu ko sax kenn mënu ko eh, jënd bo dikkee siraatal mustaqim lañ lay jaaral da la nga lay lañ lay jaar ak yow da nga ci am ndam inshallah rabbi man fofu la nek ndax nit ñi kenn mënu leena a yar ku dul yalla kenn mënu leena a ku dul yalla yow da ngay fexé ba defar sa jëm rek ba nga xam yow ko jëflantel mo am ci tawfiq lool rek man fofu la nek dal dëgg dëgg léegi sëñ euh, Abdou. am na benn tawat boo xam ne nii itam tàbbi na ci suñu xel léegi. Mmh. muy tawat bu yaatu te sonal askan wi léegi. Mmh. muy ay tànk yi metti mmh. moom itam gis nañ ne sonal na askan wi lool. moom itam ndax euh, da ngeen koy fajole déet. waaw am na ci yuñ mën a faj. waaye du yëpp am na ci yoo xam ne mën nañ koo faj loolu nag bala ñu koy mën a xam foog ñu def li ñuy wax consultation ba pare ndax tànk yu metti li ko mën a sabab daa bari. tànk dana metti fekk na la koy metti ca bopp ba la bàyyi ko. tànk dana métti fekk la koy ci ndigg la la bàyyi ko wala biir hmm. loolu foog mënoo tëb rek ne mën naa ko faj foog nga xam cause boobu lan moo koy waral ba pare doo koo mën a faj hmm. ku ci ñëw nag bu bu fekkee ne xool nañ ko mu tombeeg yi nga xam ne mën nañ koo faj hmm. bu soobee yàlla moom du yàgg loolu moom ñu ngi sant yàlla bu baax incha allah rabbi ba tey am na beneen tawat itam muy katarak di faral di daal muy feebaru gët di dal ay bët te nemeeku na ne ci mag ñi lay gën a dal boobu itam gis nañ ne ñu bëri mu ngi leen te dab léegi ci jamono ji ñu toll moom itam foo ci toll waaw bët moom képp kum dal moom mën ngaa dem seeti keneen man du ma faj wàllu bët hmm. ndax man mi sama bopp sa sama wajuru jigéen ba mu amee tawati bët hmm. dama ko yebal mu dem hôpital fajoo ji hmm. moom kum dal rek mën ngaa dem seeti hôpital wala nga seeti keneen man du ma faj wàllu bët wax waaw kon sëñ Abdou xam naa ay ñaari simili moo ñu dese xam naa dañuy delloo kaddu gi rek su ko defee nga gën a fàttali mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ñun ginnaaw bi ñu leen fàttalee rek ne ñoo ngi i àndoon ak yow ci waxtaan yu am solo ci wàllum pajum cosaan mi nga xam ne ni yéen ci yëngu ak wàllum ñaan wàll muy muy lasraar mm-hmm. leeral yi yaakaar naa ne képp ko dégg rek euh, na xel mm-hmm. képp ku yaakaar naa ne bu fekkee am nga wala am nga aajo ci yu noonu mm-hmm. mën na laa woo wala mu ñëw euh, fekk si la kon dañ lay jox kàddu gi nga gën leeral adresse yi fi nga xam ne nii foofu ngay nekk fi du uh, Dakar ak boo demee Touba fa ngay nekk mm-hmm. leeral numéro téléphone yi waaw li may wax rek mooy maanaam ñi ma xam ne ñu may déglu mm-hmm. nañ dalal seen xel jëkk mm-hmm. ci ne lépp lu waay di def di ca caaxaan am na ko koy def te def ca nekk ca ci dëgg man du ma nëbbatu du ma làqatu boo ñëwee Touba sama kër nga may fekk maa ko moomal sama bopp boo ñëwee Dakar nag yaa ngi may fekk parcelle képp ku ñëw Dakar wala mu ñëw Touba Touba nag maa ngay nekk jannatul firdawsi foofu la sama kër nekk man ko moomal sama bopp ci taw feexi sëriñ bu baax kon man laxatuwu ma defuma nen sama biir kër nga may fekk ak sama njaboot bu dee parcelle asan yi yaa ngi ñëw ci dépocace bi unité 6 adresse yi nga xam ne boo ci jaaree man ñoo jot tamit mooy 77 943 06 88 beneen bi nga xam ne tigoo la moom ci la whatsapp bi nekk mooy 76 642 46 04 boobu ñaari numéro yooyu boo ci jaaree bon deg dogal yàlla dinañ jokkoo loo ñu sant ñu def ci lañ man loo ñu sant te mënuñu ko it ñu ne la loolu mënuñu ko wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla waaw xam naa bala ñu tëj kàddu yi liñ fàttee laaj mooy ñi yi nga xam ne mën nga leen a faj ndax ñoom seen naka la ñuy kii seen traitement waaw traitement yi ça dépend ci degré feebar bi ci nit ki bu fekkee dafa chronique ci moom hmm. dana jël temps bu fekkee ne yàggul ci moom nag du yàgg incha allah rabbi waaw ndax feebar moom li yàlla waxoon rek wa maa ramayta is ramayta walaakinna laaha ramaa yàlla nee na sànni leen waaye may jam kon kenn benn sëriñ buy appal ne ñaar nangami fan laa lay faj rek kooku àndut ak yàlla ndax yàlla mooy wéral mm-hmm. ñun dañuy faj rek waaye yàlla mooy kii wéral kon nag ki nga xam ne mooy wéral nag doo ko forcé ci ñaari fan nga may wéral wala ñetti fan hmm. da ngay faj rek def li nga war a def suñu borom motalil boppam insha allahu rabbi waaw kon xam kaddu yu mujj yi rek ñu daal di tëj jataay bi kaddu yu mujj yi tamit delloor sant yàlla hmm. sant yàlla bu baax hmm. sant naa yàlla ci ñetti mbir mooy mbir mu njëkk mi ma def ay jullit ñaareelu mbir mi mu def ma taalibib sëriñ tubaa ñetteelu mbir mi itam mooy lii may alxuraan yii samay sama ko ba ma jàng ko ba mokkal ko digal ma ma dem jàngi xam-xam ba di ci jëriñ di ci loolu sant naa yàlla bu baax waaye li ma gën a sant yàlla nag mooy bokk gi ma bokk ci Serigne Touba maa ngi wax jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Serigne Touba yàlla na ñëpp am jàmm ci barki Cheikhouna Cheikh Ahmadoul Khadim